opposition mënuñoo unir. xam nga ñii bennoo ñee. waaw ñoom ñoo mënta ne. ok xam nga fu si ne dafa am logique. fële. Mhm. il ñu am nekk benn fii mënuñoo nekk benn parce que mënuñoo benn candidat de l' opposition amul sens. mënuñu ko d'ailleurs sax yeew yi je pense dañoo teel a théoriser pluralité de candidature ci présidentielle pour que mais nag ñu bokk consensus euh, de démarche coordination bi. bis bu bu kenn bu représenté ci bureau par exemple mu représenté waa yeewi yëpp. Mhm. yu mel noonu pour que mu technique. Mhm. mais sur le plan électoral mënuñu am benn candidat déjà pluralité de candidats la mais bu ñu nee ba deuxième tour nag fa la yeewi bi amaat njariñ. Mhm. boobaa ñu regroupé waat autour du candidat de yeewi mais lii ma gis ñu commencé ko. Hmm. baaxul. parce que lan lañ commencé tam dëmm Khalifa Sall. Hmm. te du <laughs> bari na fa ñu koy ñu koy critiquer du seen morom. mais est-ce tey ils ne sont pas victimes tey de cette troisième candidature bi ñu toppoon def ko seen seen cheval de bataille. bëgg ko yóbbu ak loolu loolu loolu mën nañ ko rectifier loolu circonstances yi moo leen ko poussé mais mën nañ ko rectifier bul fàttali ni euh, am na si ñoom waa aar ñu doon réfléchir si des programmes waa même Sonko il avait écrit un livre qui solution je pour te dire que loolu mën nañ ko rectifier parce que loolu aussi circonstance yi moo ko dicté. c' est vrai que ku mel ni Mimi Touré à chaque fois yaa ko doon dégg mu naan troisième candidature yooyu c' était pour que waa opposition mën ko accepter. <laughs> comprendre nga pour sa crédibilité en tant que nu euh, opposant bu bees. ràcc jëmale booram la doon def. waaw bu boobaa ñu xam ne kii kat elle est radicale gars yi mën ko accepter dans l' opposition démarche la mais pour que un parti concevoir un programme c' est pas compliqué aussi compliqué que nit ñi di c'est vrai que souvent aussi li ñuy tuddee programme fii genre euh, kii rek ngay teg ay <laughs> ay ay vieux ay ay vœux ay genre intention ay projet d'intention. li si sauf que jusque là ñoom gisaguñ leen ñu wax quelque chose de concret par rapport ak ñoom li ñu bëgg ci Sénégal fan lañ ko bëgg a yóbbu. tout le temps ce sont des sorties yoo xam ne c'est pour s'attaquer au régime en place. non non si loolu loolu erreur la woon c'est vrai de de l'opposition bi ma daan tuddee souvent l'opposition radicale. Mhm. et même beneen opposition bi modéré amuñu woon temps bi parce que ñu ngi woon ci ay problème nan laay def pour mën a bokk ak yooyu yooyu moom c'est des problèmes yoo xam ne Macky aussi da leen da leen acculé woon rek bàyyiwu leen de da leen acculé gars yi amuñu temps de ba di mënuñu woon nooy ku si ne yaa ngi ay difficulté ki ñaan sud buti fii ñu naan Mame Mbaye Niang gars yi amuñu amuñu woon temps <laughs> mais mais bon euh, conception programme yi wuy gis nga ci législative yi il y a des gens Euh, wax ay programme mu mel ni sax élection législative boo ko dégloo dëgg élection législative boo ko si da ngay foog ni présidentielle en réalité c'est euh, de, conception de programme nga xam ni day mel ni yow euh, boo demee assemblée yaay gérer pays bi quoi alors doon naa leen sax saboté ci côté boobu pour te dire que les gens vont essayer de rectifier ils vont essayer mais encore une fois programme yombul euh, intention yomb na comme nga ni par exemple rupture Euh, bon léegi affaires étrangères léegi désormais nii lay def léegi ay affaires France Afrique c'est terminé yooyu xam yooyu yomb na. waaw léegi après nga ni bon euh, maintenant pour pour euh, les kii des jeunes l'emploi des jeunes. léegi c'est on va on va des conceptions de projet jeune yi dañuy liggéey agriculture bi léegi la ñuy valoriser xam nga loolu yomb na. mais noo koy defee techniquement oh, voilà un peu les difficultés bi ah. nga xam te ni souvent moom la ñuy am avec nos avec nos nos leaders mm-hmm. dañuy def ay pro ay vœux euh, projet d'intention projet d'intention du programme il y a une différence maintenant pour pour nga def ay projet d'intention loolu yomb na valoriser l'agriculture euh, la pêche mooy le secteur primaire la santé, créer la transformation des unités oui mais yooyu mën nga ko wax mais après comment va comment comment tu vas réaliser ça parce que transformation yi boo transformer bay ba pare da ngay bay boo amul foo jaay mu lamb lépp yàqu <laughs> parce que fii yaa yaa ces problèmes moo tax sociétés yi ma daaneel foofu rek ah. pour ñu yeewu ci c'est ce qu'on appelle des sociétés autoréférentielles en politique publique maa ngi euh, renvoyer les gens ñu liir Max Weber mm. en politique publique problème solution yi ngay indi ces solution créent des problème ce sont ces solutions yi ngay indi pour réglé des situation solutions yooyu mooy euh, mooy indi problème yu bees moo tax état naqaree gérer <laughs> et là moo ci loolu laa bëgg yéen nit ñi bu baax ñu mm-hmm. def attention par rapport aux solutions parce que les solutions engendrent toujours de nouveaux problèmes de nouveaux problèmes